moo soxal contrôle ak vérification titre occupation ci dépendance yu yàgg yi ak yu bees yi ci domaine public maritime ci région bu Dakar premier ministre xaatim na benn décret bu soxal ab création commission ad hoc ci article mu njëkk dinañ taxawal ca primature ab commission ad hoc boo xam ne moom mooy saytu titre yi nga xam ne joxe nañ ko ak occupation yi nga xam ne amal nañ ko ci zone yi ñu ciblé ndax méngoon na ak yoon article 2 commission bi nag ki ko nar a coordonné moo di ministre bu ñu dénk wàllum finance ak budget secrétariat bi ki koy amal moo di ministre bu ñu dénk wàllum urbanisme collectivité territoriale ak aménagement du territoire commission ad hoc bi dina am ñaari groupe de travail groupe bi ci njëkk moom mooy saytu lépp loo xam ne dafa soxal wàllum yoon beneen groupe bi moom mooy saytu impact yi nga xam ne moom mooy am ci société bi ak environnement bi article 3 liggéey commission bi dinañ ko def ci ab rapport jébbal ko ki nga xam ne moo di njiitu réew mi article 4 directeur général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol jot na ndogal ngir dakkal ci diirum ñaari weer li ko dalee bés bi ñu xaatime décret bi bépp construction ak yeneen yeneeni travaux yoo xam ne dafa nekk ci dépendance yu yàgg yi ci domaine publique maritime fii ci région bu Dakar